Oh. ahlan bikum ceebu jën penda mbay bu saf sàpp xam jën yu ngand yu ponkal nooy neex ñu rax ca yaabooy bu dijj bi léegi tey mu del si waat Sénégal ndax xam ngeen ne jën fa manqué woon ci réew mi waaye kilifa yu bees yi ñu dénk réew mi fa ñoo xaaye ay bata yu bari tubaab yi yu doon ñëw fii Sénégal doon xuuf paa yóbbu suñ jën yëpp ndax wàllu licence de pêche yi ay tappale xanam gu jaaru yoon ci lañ ko doon joxee ba tax la Réveil yéen a kaay na loolu nag jeex na intaha c'est fini ah, jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp gi Fatou Diouf fa génnee liste bato yi nga xam ne fi mu toll nii bés ni ki tey ñoom rek ñoo xam sañ-sañ napp ci géeju Sénégal gi ay jën mu nekk dogal bu xam solo ndax fi mu toll nii bato yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci réew mi Sénégal ñoom la ñu jox ñoo gën a bëri fuuf bato tubaab yi ndax ñu ngi toll ci cent trente-deux navire tubaab yi moom xam nga ñaata bato lañ leen may fi mu toll nii ñu napp Sénégal fukki bato ak juróom-ñeent lii yéen kilifa yi kay jomaay ak ñim àndal fa ñoo géej gi waaye ndax yàlla sénégalais fa ñoo sonnoon ci jën yuy manqué te tubaab yi napp yu bon lañ doon napp suñ géej gi luñ soxla ak luñ soxla lépp lañu daan yóbbu réew mi yéen a kaay na Bassirou Diomaye Faye kay ginnaaw bu mu lijjantee wàllu suuf tappale bi ci réew mi fi mu toll ni fa lijjanti wàllu géeju Sénégal gi la Soleil yéen a kaay feelu ko na ay navire bato yoo xam ne fañ leen a jox sañ-sañ ñu ñëw napp ñi nga xam ne nag joxuñ leen sañ-sañ kenn dootu fi nappatee c'est fini intaha laas yéen a kaay na ay mbir yéeme nag moo am ci liste boobu ak licence de pêche yi de fa nga gis ay bato yoo xam ne xamuñ waaye gis nañ ci tamit ay bato yoo xam ne France la leen moom mel yu ci bokk mel ni ku naan waa léegi président Bassirou Diomaye Faye lijjanti na suuf si tappale gi géej gi jën yi waa léegi hôpital yi nag kañ lay toog rek dem seeti leen bett leen ndax mën a gis seeni problème jafe-jafe ak nuñ ko saafaraaye indépendant yéen a kaay mel ni ko daanaka xaw ma kañ la daal waaye li ma xam mooy wàllu napp gi géej gi lim ci def dëgg-dëgg mooy yemale ak li jaadu li nga xam ne daf ci daan am nag ci wàllu napp gi te jaaduwutoon fa ko jubbanti ndax fi mu toll nii bato sénégalais yi ñu dëkk ci réew ñooy ëpp fi mu toll nii lu ñuy napp que yi bàyyi ko bitim réew te bu njëkk Sall ak nguuram fa ñoo joxoon tubaab bi suñ géej gi rek ñu koy caxat-caxatee yóbbu leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne xam na politiciens yoo xam ne ay ponkal lañ woon fa ñoo xarañoon ci wàllu politique waaye fi mu nii jeexal nañ de à la traité Sud ne bokk na ca Khalifa Sall à la traité na jeexal na ci politique su yow mu dem toog noppalu ji naka noonu Idrissa Seck dee na wett ci politique fi mu toll nii Diop Decroix Moustapha Niass Ablaye Wade Aminata Mbengue Ndiaye ba ca bàcc li turbine yéen a kaay na PS AFP PIT du ñàkk PSD ñoom ay parti politique yoo xam ne yóbbaale ma ci loolu lañ nekkoon waaye loolu da fi mu toll nii intaha politique yoo ci këy rek lañ nekk waaye xamuñ benn nit l'observateur ne Macky Sall nag ak APR fay ragal ñu réeroo de ndax Macky bu bëggee nekk bitim réew na fay jiite APR di ci andi ay dogal fay ragal li dal PDS mujj dal leen de ba tey l'observateur ne Pastef tamit fay ragal ñu xaw waneen yoon fi mu nii soppi doxalin ah yow tubaab bu ñuy wax Mélenchon bi ñu fi bëgg a dalal ko fii foogu na fay xajamal jëflante diggante réewum France ak Sénégal ñu ci jaxasoo ndax faa lay wax leen ñii li ñu def xam nañ ko de jomaay fay moom moo yor pale ba ak lépp lu ca aaju moo koy doxal Ousmane Sonko moo yor parti ba Pastef lépp lu ca yor moo koy doxal ñoom noonu lañ ko séddale de ñiy séddale nag suufu réew mi di ko caxat-caxatee ci anam gu jaarut na leen wër na fi mu président jomaay fay fa leen di lukkat de mi ngi leen di rëbb critique yéen a moom fa xëy di ñu xamal ne chantier yiñ doon liggéey ay moom fa xëy di ñu xamal na pôle urbain bu jam ñaajo ay mbir yu garaaw tappale doxalin bu jaarut yoon moom lañ fa nemmeeku yaaw seetal ñoo xam ne fañ la a affecté ci anam gu jaarut yoon wàllu détournement ak yorin bu lëndam daal ba ci sax ja ñu dénk wàllu wér-gi-yaram foofu gis nañ fa wàllu tappale ak ay mbir yu garaaw bés bi yéen a kaay moo ñu ko xamal yor yor yéen kaay moom it fa ñoo xamal wàllu tappale ci suuf ca kër musa waa Pastef yi fa nekk fa ñoo joxe liste ay mbir yu garaaw crime yoo xam ne maire ba di Momar Cisse fa koo def ñu ne ñu ne déetawaay caaroy gaar conseil municipaux ya fa ñoo ñaawlu yorin bu garaaw ci wàllu suuf boo xam ne seen maire ba mbay seen fa ko faa xamal moom it ba tey yor yor yéen kaay ne juróom-ñaar fukki liggéeykat ak juróom benn ya nga xam ne fañ leen a kajji dàq ca hôtel ba ñuy wax kin fat place ci xanam gu jaarut yoon fa ñuy sàkku ñu jëlaat leen far force fra force doole mbaam man ma jël info yéen kaay fekk fa carna bokkum fay sëkkatal président yu sa candidature comme na ngeen ko waxee woon ñu ne déetewaay faa bëgg loi amnistie bii ngeen jëlee ko fi su ko defee ñi rey ay doomu Sénégal ci ñaxtu yi fi amoon yëpp ñu yóbbu leen ci yoon leeral yëf yi naka noona tamit fa ngeen war a def déclaration de patrimoine ñu xam seen xalal ji pour ëllëg bu ngeen fi jógee ko ba tey car na bokkum fa wax président Diomaye Faye na ko Serigne Bassirou Gueye mële waratuta continuer di jiite OFNAC ndax moom ab procureur ko ko joxee fa ca tegoon lijjanti ak xolaat seen doxalin ci niñ tàmbalee yor réew mi ba tey info yéen a kaay fa ñoo xamal ne Ismaïla Madior Fall bi fi nekkoon ministre ci jamonoy Macky Sall xam moom professeur la ci wàllu droit lay jàngale ca université bu Ndakaaru léegi nag fañ ko toxal affecté ko IFAN waaye syndicat ya ñuy wax SUDES ñoom fa ñoo wax ne d'accorduñ ci wala boog xanam nga yoon direct news yéen a kaay na faa leen di fàttale nag Ismaïla Madior Fall <laughs> wax baara taal ko waxaloon loo xamut mu dem ba xam ne la ko waxaloon xamut mu ne ko baal ma li ma waxoon xamut vox populi moo ñu ko xamal enquête yéene kaay jaar-jaaru journaliste wax Pape Alé Niang dëgg bëgg réew mi yàgg bañ injustice jafe yu nekk mu jaar ci ba tey mu jiite RTS ki jiite réewum Sénégal nag Bassirou Diomaye Faye fay dem réewum Côte d'Ivoire ni ki tey ci talaata ji teral yéene kaay moo ñu ko xamal enquête yéene kaay fa ñoo xamal ne liggéeykat yi nekk ci mairie yeeg yi ni mel collectivité locale yi seen geraw ba fa gën a takkarnaasa fi mu nii seen àq ak seen yelef la ñuy sàkku ki sàkku sàkk ministre yi ñu démissionné ci seen poste maire yi muy Ousmane Sonko enquête yéen fa ñoo xamal na fa mel ni daal Birame Souleye jóob ba léegi maireu Thiès la tekkee gu ndoomal tànkam de tàggat yaram Ligue des champions Paris Dortmund lay dalal fañ ko mbuqi woon nag ca ale ba ndax dana fayu ba dem final li ci kanam rawul ay gët li rawut l'observateur di mbir mu yéeme te garaaw fa xëy di ñu ko nettali yaaw seetal fa xam benn soxna soo xam ne fa xam jëkkër léegi mu dem ca xàll ba benn maçon gis ko fa rek ñëw daanee ko ne fa koy siif violé ko tëdd ak sa na ko maa bañ mu ne ko far force wala ma ba summi tubooy ja ba di ma dang ma ray ndaw sa di bés rek ba ko bàyyi ta daw dem yëf yaa nga amee ca diiwaanu Louga waa ma ne merci beaucoup très bien shukran loolu baax na ci maçon bi yow nga war a dem tabaxi ji ay kër ngay dem di jéem a violer dootoo ko defati de yéen xale yi jigéen yi daal ak soxna yi gis ngeen nu ndaw siy def dee leen def noonu rek góor gu leen bëgg a violer leen ba jàpp ca mamat turam ya rek boo cay jàpp sooy bës fay sukk jébbalu yooxu ndax loolu fa métti de mën naa rey góor laa wax hee <laughs> aka métti